Sonko nag mooy président. loolu mënu Sonko du président de non eh, loolu moom xam nga chaque jour nga ñëw toog fii nga wax ko te duñ ko mus a nangu. yow bu sonko di am jafé jafé nak la leer na yaa ko jafé jafe-jafe yi. loolu waaw parce que nak président moom influenceur yi rek de buy dégg xolam du neex. lu neex andi jafé jafé moy moy moy andum xam nga lan la li wax nan andum mbët. Mhm. so jito mu ne yaangi jël sama gunoori bu ngeen laandee dag may deer mbag mhm. bo ne ci ginnaaw mu ne yaangi joggi sama gen bi. Mhm. yow nak nga bëgg ne ko nak tek ko ca kaw nak sa kaw yow yow li nga xam moy mom mom mom lañ fal. bu dee sonko moy président. ah vraiment tamit lolu kan mo demone Gambie. Jomaay jaxar kan moko xaar aéroport premier ministre. Sonko. waaw Sonko daal di yéeg si avion bi dem Gambie. yéegut léegi lan moo tax maane moom mu taxaw mu naan na ko may espace mayu ko espace. mayu ko espace parce que ca kaw tapis ba la doon dox te waru caa dox. xam nga loolu. c'est que xam nga loolu dama ne protocole. Hmm. mooy commencé rey président. Hmm. protocole. Hmm. bu la nee protocole ah ñooy la protocole yow booy dox gis sa baay wala sa nijaay waroo jàdd dem nuyu ko. xam nga loolu mooy ñu ngi lay bëgg def tubaab de ma de la mais république ñoom ñoom mais taxi ñom ñoom changé guñ ko kay nañ respecté texte yi rek engom xam nga kan fi gëna réussir mm. Sénégal mm. ci président ñu mësa am yëpp ablay wat mm. xam nga lu tax dafa ñëw il a cassé les lignes dañu bëgg def rek lay def moom kenn mënu koo tere def lu muy def tank <laughs> yo la jamaay nek ko ak son rek mo ñëw tribune nations unies experts yi bindal ko discours mu teg fee discours bi. Mhm. dëgg la wax ak tubaab yi xeteme. Mhm. léegi nga xoolal déggoo. Mhm. seetaan nañ ko seetaan nañ ko ambassadeur u États-Unis. Marcia Bernica. toog fii Sénégal di ñu fontoo. ñun tappetu africain yi. ñun complexe noir yi. mosu ñoo convoqué ambassadeur boo nee États-Unis ñu naan la ay c'est le pays le plus puissant mu woo ko fii. Mhm. wo RTS def ko en direct mhm. delo ko ci place ba Marcia Bernica hein mhm. ah, di lox bu don protocole la dégg kan waaye yow xanaa booy ambassadeur xana dang koy wo sa bureau ken du deg jamono yoy deg na ben autorité mu ne nek ci rew mi wóor li mu def ah. na di xalat ay CIA ak FBI mané mané mané de nga tuba gis nga gaay mu ne dugale ci protocole yéen li ngeen di woyé protocole nee la protocole ah te gën naa ay information yoo xam ni mhm. non yaakaaruma ni loolu am na. waaw mhm. mooy parce que loolu bu amee c'est grave ñu ne. Mhm. ñu ne koñ bi Bassirou Diomaye Faye nekkoon. nee nañ sax boutique yi nañ tëj. non xanaa xanaa loolu dama ne rumeur la. si Dakar waaw. mooy fi mu dëkk ci cité waaw dama dégg loolu waaw. ma ne loolu rumeur la xanaa rumeur. waaw ñemewuñ loolu. dëkkatu sax non mais. waaw non dama ne. non même même bu fa. non dama ne dama ne même bu fa dëkkoon sax tamit c'est pas normal. dama ne dama jàpp ni loolu. waxu rumeur la. Mhm. mais Basiru ñemewu loolu. te warul nangu loolu xam nga lu tax. Mhm. yenn saay yi sax yow doo yëg. Mhm. dëgg la gis nga waa protocole ña ñuy wooyee protocole. ak ña ñuy wooyee sécurité. ñoo lay rey détaché la du ton peuple. ñoo lay wax xoolal fii bul jéggi fii bu waa yow léegi yow yow jomaay yow boo duggul koñu Medina yi nga xam amatul tali. doo yow gars yi di la tracel yoon rek. est-ce que yow di nga xam li waa Médina di dund. si wàllu qualité soo waree dem fenn war a jaar si suuf ñu wala rang-rang. Mhm. ñu dévier la dugal la si tali. koo mhm. taxawee ñu naan dëkk bi amul tali. Mhm. yow da taxaw naan nit ñi dañoo soxor. fekk yàlla xam ne ni ñu lay wax dëgg la. foo war a dem. ñu peinture ko ba muy boy. dégg nga ba ju la defaraat ko lamp yi doon bu tàkk woon ñu taal ko. mais yow boo ñëwee opposition bi naan dëkk bi dafa lëndëm. da ngay wax dëkk bi dañuy nar. opposition bi dañuy nar. fekk yow ER lañ la tegal. li nga bëgg a gis rek lañ lay gis wan. lu ñu bëgg nga gis rek ngay gis. grand li nga fii ci Afrique. Mm. muy dama fàtte turu bi muy dem ci hôpital bi a war leen a seeti. Mm-hmm. protocole ko jaarloo mu ne mu taxaw ne leen bàyyi leen ma jaar fu ma neex. Mm-hmm. mais ci la président gis nga jour boobu mën naa leen ne dafa daf leen a am na ñoom bis boobu la leen dàq directeur bi mu ne lii ak lii boo ko dépanné fii ak temps ma dàq la. réglé fa situation yu bëri parce que président dañ ko bàyyi muy dugg fu ko neex. di ah, hmm. hmm. loolu moo réglé problème hôpital ba. Hmm. mais c' est vrai que foofu moom jëfandikoo fa protocole kon baaxul. dëgg la kon nag président tamit léeg-léeg mu jëfandikoo loo xam ne nii du ko teg ci protocole. dañ lay nax. dëgg la mais nag yow sa waa ji waaw li problème am tax nit ñi di mooy kan Ousmane Sonko loolu koy jarul laaj li tax nit ñi di ci bàyyi xel dëgg-dëgg mooy Ousmane Sonko sa waay la Ousmane Sonko day fàtte ne Diomaye mooy président c'est ça moom moo porté projet bi di ko du ko bëgg bàyyi moom mu doxal fàtte gi muy fàtte ne Diomaye moom la moo ko njiit moo takk ca xabar moo ko jiital dëglul dëglul yéen il faut ngeen nangu benn affaire mooy lan te loolu Bassirou Diomaye Faye moo ko njëkk nangu mooy lan mooy ni moom dafa nekk li ki nga xam ni moom mooy suppléant wu ki porte projet bi parce que dañ ko faagaagal. donc c'est le boy comme niñ koy ah, waxee. non non non déglu loolu loolu déglu <laughs> dama ne dama ne. <laughs> Euh. moom Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. bu nekkoon sago Ousmane Sonko mooy nekk président. Mm-hmm. ay nit ñoo ko faagaagal. Mm-hmm. dégg nga ma ne Ousmane Sonko. am man Serigne Mboup mooy sama patron. ba léegi ne est-ce leer na. ba léegi ne. non moom mi ma ne déggoo mooy patron mais Serigne Mboup ba ko mag ba ko Ousmane Sonko recevoir ba léegi. dañoo gis ne moom mii dafa takk. waaw wax na li ci ne ngay déglu ma expliqué la. am am na lu si yaakaar de. man maay porte parole lu Serigne Mboup. dëgg la mhm. lu kenn fii boobu mu yeewu suba teel dàq ma. Mhm. te mu dàqee tam ma nangu ko. Mm-hmm. ndax moo ma faloon xam nga mm-hmm. décret moo lay fal mm-hmm. décret moo lay fol dégg nga wax ah. man may porte parole sëriñ boobu mais fii tooguma fi toogaayu porte parole kon du ma wax turu kenn ku dul sëriñ boobu dama fi toog toogaayu chroniqueur chroniqueur nee naa leen day analyse analyse yi waru koo teg ci par parloo nii mhm. mhm. da ko war a teg ci xam-xam bu mhm. xóot bu lay wax nii kenn mënu ko dindi mooy lan Bassirou bu nekkoon sago Ousmane Sonko mooy nekk président de la République ndax moo doon candidat am ah, de circonstance am mu am fii senegal ay fee yu mel noonu Karim Wade ko ñaari élection Ousmane Sonko ñëpp ñu né mom la top xam nga mhm. Sénégal ñëpp loolu la daan wax mhm. mhm. kérok ba mu né désigné na ay candidat jaaxal na nit ñi mais il fallait brouiller est ce que xam nga ni bu ne woon Diomaye Faye moy suma candidat dujal Diomaye Faye du jàll du jàll du jàll non du jàll bu ne Diomaye Faye suma candidat directement du jàll la ko dafa pour pour dafa ne Cheikh Tidiane Dièye. Habib Sy ñu toog ba si kanam mu ne Diomaye. Diomaye préparé woon na ko daal. dégg nga lu ma la wax. Mhm. non cest du Diomaye kese. maanaam ku nekk Diomaye munoon na yeewu suba teel ñoom Pastef ñu ne leen kii du candidat. Mhm. te bul woon candidat. ngeen gis Cheikh Tidiane Dièye wala Habib si am ay escort yoo xam ne yéen sax da ngeen di waaw. dëgg la.